li si yéenekaay yi dañu koy dooree ak Le Soleil ci tukkim nemmeeku bi nga xam ne président Macky Sall war na ka amal fee ca Thiès ci juróom ñeent fan waaye askanu Thiès kat ña nga koy pareel ngir dalal kii di président Macky Sall dañuy desandi kat ba tey ca ngan googe président Macky Sall mu ngi seet ne tuut ni mu def ba mën a rataxal digganteem ak waa Thiès tax mu bëgg faa yokkandi ay infrastructure bu ñu sukkandikoo ci journal Témoin waaye ci mbir mi ni mel journal bii di Le Quotidien mi ngi xamal ne lépp li nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy def def ca Thiès du lenn lu dul bëgg a gañewaat confiance waa Thiès ah ñu addu ci beneen mbir ak kii di njiitul Pastef di Ousmane Sonko plainte yi bëri neen lool ci ndoddam waaw waaw moom njiitul Pastef boppu coowal siwit Beauté ci ndoddam bu Mame Mbaye Niang ci ndoddam ak bu policier bii ci ndoddam waaw xanaa njiitul Pastef bii dafa dëgg liggéey bi mu moomu Walf Quotidien moo ñu ko xamal li Vox Populi xëyee ubbil yéene kaay yi kii di usmaan Sonko gannaaw ba mu seeti jee kii di Amadou Ba mi ngi xamle ragal ak tàppet ba te war naa wuyu ji yoon ngir ñu mën a xam milliards yi mu yor fu ma ko jëlee gannaaw ba ñu defee seen compte rendu ñu jeexalee ak yéenekaay bii di l'observateur ci accident bu métti bi nga xam ne amoon na fee sa six kilo ca Kaffrine ba ñeent fukki doomu aadama ak juróom ñàkk ci seen bakkan na ñu muccoon ba tey accident boobu lee bàyyiwul leen kenn ci ñoom di woyoo turu Aïda Dia nee na lu muy dund métti na ba dégg dayoo jor na jàlloo moom nee na ñemeetul génn ngir fit dem génnoo yal na yàlla xare ko aljana te yàlla defal ñu jàmm